journée set setal bi nga xam ni président de la république di Bassirou may Faye nag daan na koy daal di initier te boobule journée nationale de set setal boobee sax ñu wax ko amal ni ki rek le premier juin ki nga xam ne nag moo di le ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire di Moussa Balla Fofana moom moomee nag daanay daal di procéder à la revue des moyens logistiques yi nga xam ni wax nañ ko daal di jël wante bépp disposition ba nga xam ni wax nañ ko jël ngir rek journée boobee naka daal di mën a yemb bu ñu sukkandikoo ba tey ci ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire di Moussa Balla Fofana daan nay daal di xamle rek ni toll ci 5000 agents seront mobilisés wante lu ëpp 300 unités monotorisés seront déployés par la par la SONAGED à travers le pays pour rek journée boobee nag daal di mën a jaar yoon yemuñ ca lool it daanne daal di xam li nañ daal di assurer de la disponibilité des services de l'État ngir mën a soutenir boobule initiative des communautés locales bi nga xamante ne si nag ñoom ñoo daal di bëgg rek jàpp ci action citoyenne boobee pour rek le bien-être des populations salaamaaleykum mbokki Sénégal ni ngeen ko xàmmee ci bopp réew mi jubbanti lañ fi woote jubbanti ci jikko yi jubbanti ci yorin wi waaye jubbanti tamit ci dëkkuwaay gi ñu fas yéene ci ànd ak sénégalais yi te gëm ne lu ñuy def ñoom lañ koy bokk defandoo ko ndax kenn rekk doyul pour soppi lu fi nekk benn bés ci weeru juin fas ne nañoo am ci biir Sénégal set setal bu mag a mag a mag liñ ciy waajal mooy taw yii di ñëw te ren gi ñu xaar ay taw yu baree bare bare ñu xalaat inondation yoo xam ne xëy na jotaguñ fi def liggéey gu tax ñu mën ko fànq ñu bëgg a def liggéey boobu ànd ci ak yéen man mii dinaa ci génn keneen dina ci génn ak gouvernement bi yépp ñu jël suñu pel jël suñuy bale jël suñuy rato dem def lu ñuy wax curage canaux yi caniveau yi maanaam fi nga xamante ne foofu la ndox mi di jaar ñu defar ko ba ba du fat bu ndox mi bu ñëwee dina mën a jaar dem yoonam waaye ci bés buñ ko nar a def tamit bu ngeen seetloo dañ koy def ba pare ki ñëw nañu xalaat ne saa yu ñu tilamalee ci lu mënta ñàkk ñu setalaat ko lii nag ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp sénégalais bu mu mën di nekk ak fu mu mën di nekk samedi premier juin na nga ñëw ñu fekkante ci terrain bi te bu kenn xeeb boppam ci matériel bu muy yore pour setal koñam waaye di ngeen ñu gis sur le terrain ñu nekk seen wet ba xool ñun ak yéen kan moo ëpp njàmbaarteef ci li nga xamante ne woo nañu leen ci asalaamaaleykum wa rahmatullah tey dañu am ñëw xool préparation bi nga xamante ne nii sunu service yi euh, engagé nañ ko ci ndigalu président de la république. comme ni ngeen ko xamee dafa bokk ci projet bi nga xam ne son excellence le président Bassirou Diomaye fay daf ko mettre en avant mooy Sénégal dañu fas yéene jublu ci setal sunu réew jublu ci changement de mentalité ak changement de comportement boo xam ne dañ ci ànd ak askan wi ngir defar sunu dëkkuwaay. fagaru faggu lépp loo xam ne rek mën nañu andil ay jafe-jafe moo tax journée bu am solo boobu nga xam ne ci yàggul dara dinañ ko lancer de manière officielle tey nag ma ñëwoon en tant que ministre avec mes services ñu préparé wu xool revue équipement yi ak lépp loo xam ne rek soxla nañ ko ànd ci sunu jàmbaar yi nga xam ne ku ne xam na leen ci seen farlu ci seen dëggu ngir setal sunu réew donc looloo nekkoon tànk yi may jaajëfal ñu ma fi fekk fekk naa fi ay doomu Sénégal yu am jom am fulla bëgg li ñuy def te taxaw pour accompagner véritablement changement bi nga xam ne dañ ko bëgg ci sunu askan mooy askan woo xam ne day sàmm dëkkuwaayam day sàmm environnement am day day góorlu ci cet ak cetal ba noppi continuer nag di ko def régulièrement donc looloo nekkoon tànk yi di leen gërëm encore une fois ci seen taxawaay di lancer vraiment la mobilisation surtout au niveau des collectivités locales et des mouvements associatifs que ñun ñëpp ñu ànd euh, topp cette dynamique la dynamique bu nga xam ne changement la ñu bëgg dans notre environnement dans notre cadre de vie Nabi Cargo GP adduna yéen ñëpp dégg ngeen Nabi Cargo yéen ñii fii ci Sénégal mooy jël seen bagage yóbbu ko états lépp lu ngeen bëgg yóbbu États-Unis ci diir bu gaaw fépp nag ci biir États-Unis laa la wax de noonu la Nabi Cargo taxawee te li mu lay yóbbul du am benn problème da la ko yóbbul États-Unis ba ci état yi New York Ohio Atlanta Californie waaw waaw li ko tàmbalee un kilo ba une tonne loo bëgg a yóbbu états Nabi Cargo mi ngi taxaw te bu dee enveloppe ngay fay te laaj ma lu gën a neex sa bagage bu yegsee ci ngay soog a fay gaaw leen contacter gaaw wala www.nabicargo.com Nabicargo GP dina indi tamit ay bagage ci réew yi nga xam ne moo ñu wër yépp Gambie Mali Mauritanie wala boog Ghana ah eh, Nabicargo mooy yóbbu sa bagage yi fa ko bëggee ci États-Unis